mbokk yi final lese baa ngi noonu Boy Jules Bassirou Sow Boy Jules moo ngemboo ngembul weer li tent bopp bi Bassirou Sow moo ngemboo ngembulu bees li taxali ko waat nañu léegi Bassirou Sow Boy Jules Boy jël ko wër na ko ndombo Boy Jules Boy Jules Boy Jules daan na ko Boy Jules daan ko Boy Jules daan ko Boy Jules daan na Basirou Sow e Boy Jules Boy Jules ziar naa delloo ziar mais tey daa mel ni neex na waaw sant yàlla mais fan yi yëpp gis nañ la ngay ñëw mais affaire yi du neex tey nga ñëw jël affaire bi nu mu demee noonu affaire noonu la dañuy sant rek dañ daal ñëw di ñaax te ñu ñëw xam nga am lañuy kon lañuy sant yàlla bu baax a baax. yàlla dafa mel ni da ngaa dolli cere yokku ñi. waaw gis nga affaire liggéey la rek lamb lañu am ay ay waa Kër Fall laay amuñu lu lamb ba ak Serap Fall. waaw ma jël gars